gëm nga yonent bi istajibu lillahi wa lirrasul iza daakum kon wote wo farata la go xamni muy góor muy jigen yàlla neena sul len wowe lu jëm ci yàlla ak lu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir dundal lislaam bi ku ci amul ngànt rek war nga dem wuy ci ndax ki nga xam ne tamit mooy ndeyu mbili mi di sunu bàyyi alxaaji moxtaar sàmb amul lu lu waay di mën di def te mu dégg ko te xam ko te demul wuy ci loolu farate la kon fa tabaarakallaahu daje bi nag mu day nekk daje lislaam sabab lu si sunu raq alxaaji muhammadul mustafa kamal ci yéeneem ak xirteem bëggal kenn ku nekk yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira muy sos lu mel nii yéene ko jullit ñëpp yéene ko dëkkaale yi wëllëre yi xarit yi ak ay waajuram ak Sénégal gi yëpp kaamil gi nag ñun ñëpp ñu def ci tawassul ñu jaamoo ko sunu boroom sante ka yàlla subhaanahu wa taala دفك هدية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يني والي ستميت وي دولي لك دوري سن مام يدور سن باي الحاج مختار سامب تي كوتي ندي اك تي كوتي باي يني والي ستميت اي نجابوت مصطفى اك نجابوت تبارك الله سن سرين بيغا خامني ات مو نيك نديرني رك yéen waa si jullit ñépp képp ku fi ñëw jéego boo jéego ñëw ci kër Sayib gii yàlla ko yàlla de mu nekk si bukkum bakkaar ak fajum aajo ak yokkute ci biir ak ci biti yéene waale réew mi ak lii jublu muy élection yi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim mu ànd ak jàmm ànd ak sutura ànd ak dal génn ci alhamdulilahi rabbi alamin ñu ànd seeg jàmm ànd ceeg dal naka sunu maam Cheikh Abdoul Aziz Dabakh rahmatullahi alayhi daan ñaane réew mii yàlla ba fi bal tàkk yàlla ba fi dara tuuru yàlla yàlla tàppi xol yi si der ñu sallallahu alayhi wa sallam kon bu ko defee incha allahu ñi nga xamante ni amewuñu jukki nu jël seen kurus di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ba nuy àggale bu ko defee sunu mbokk jigéen ñi nekk ci biti ñuy wàññi tamit seen baat wax mënta ñàkk ndax lii ñuy def lu rëy ci yàlla la fees dell ak yërmande ndax ñun ñëpp yërmande yàlla lu ñuy sàkku ndegam yeneen kàddu yoo xam ne mi ngi bawoo ci ay mbindeef yu yàlla bint bu nu toogee seen keppaar doo dégg ñu wax do degnu nu yëngatu doo dégg nu caaxaan waaye kàddu yàlla nanu ko yàlla waxe wa iza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu laallakum turhamun kon ñun ñep yermane yàlla moo fi tax dikk bu ko defé insha allah ñi am dik tamit ñoonu selal seen jàng ko xamni tamit ferulo idji wala ferulo liifent ñoo nga lay ñaan nga jox ñafer idji ak ñafer tamit liifent bu lu ci daraja fek bu lu ci reuy fek ku mënul bawuloo lu yàqu rek yàq te alquran kenn du ko fowee leneen loo ci yàq demmakati te mënuloo ko bàkkal bu rëy lay doon kon ñoo ngi jéggalu di ko ñaan tamit mbokk moo xam ni miisuloo dara ci wàllu alquran mis nga ci kàddu yi ci yenn turi yàlla yi yema ci turu yàlla yi kenn du la ëppale yool kii toog di jàng ak kii toog di déglu ak kay bëgg ak ki kay déglu ñoo bokk yool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 أنزل من قبلك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله إن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي فعلت على أعيباء وكان وراءهم شفينا فما فوقها وأما الذين آمنوا خالدين فيها أبدا إن لا يدوا أن يعذبوا يا الذين آمنوا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ولا يدعي الله كذلك وعن عذاب التي قضى سوى اتباع الصبرات إذا بلغ بين عند وجل من كل ما خبر لا يكاد يأجوج ومأجوج مفسدون عن بعض الغلو والسلام وآتوا الزكاة وارضوا مع الباقين ولكن يا wa sallam nekk di yëngatu foofu ci dixième ci wàllu jumaa ji lépp ci loxoom la ko yàlla teg mu doxal ko doxalin bu rafet bu jógee këram ma nga te fa muy liggéeyee bu jógee fa muy liggéeyee ma nga ci jumaa ji amul beneen soxla bu dul boobu ba sama soxna dinañ ko tooñ bis ne ko alaaji yow dañ la war wutal néeg sax ci jumaa ja mu ne ko loolu moom a gënal pour won leen rek dëggoom ak taxawaayam ci wàllu yàlla kon boog waa dixième ñun ñépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci lii nga xam moom la defal kii di oustaz amaat ñaŋ mii toog tey te alaaj Maxtaar wax ko léegi moo jàngal Kamal moo jàngal sama doom bu jigéen bu nekk Tiwaawan di fa sëy moo Kamal ñoo maasee ñoo jàngandoo alxuraan ñoo defandoo lépp kii toog ci wetam Mouhamadou Mansour Ndaw doomu imam Moussa Ndaw ñun daal xawma kan waaye ñun dixième am nañu chance macha allah am nañu boromi xam-xam am nañu xale yu yaru am nañu ñu baax macha allah yëpp ci njaboot gi rek la yàlla yàlla guddal seen fan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ki tax ñu ñëw nag mooy Kamal dama dégg bis simam Abdul Aziz Sy radiyallahu taala mu wax ni du fekkee ni yaa ngi wax ci nit. nena na nga wax lillahi wali rasul nena na ñaar am abdou nena bu bi yow mi wax xamni li ngay wax deug la du lo sos ndax bëgg alal wala bëgg daraja nena bi ci dess ki ngi koy jëme ci nopam bu duggé ci nopam muy ni ki lim wax ci man deug la suma bi ni kamal ku bax la ñëpp nangu buma kamal ku yarul la ñëpp nangu nek na xalé bu nga xamni bi ma sha allah nak yalla fal ciat xamul lu muy defal bayam de waye ñun ñi nga xamne wëlëre bayam mu ñu defal lu ñu war amul ci nang tabaski amul korite amul gam amul dara mom dal terangam bu la ko wara defal dina la ko defal lillahi wal rasul te kenn du yëg yow ak mom ak yàlla rek kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yalla yàlla guddal fanam yalla naka yàlla may mu fekk njariñu njabotam bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam xewal bi nang ku ko yàlla defal da nga wara sante شيخ سنو خريط لا سونو سوب لا سونو ليب لا دي الله دي مختار واخ دغ لا ياغنا تي كيرغ لا نكا دان ديفاي مو خات لول با يالا ديف الحمد لله نيجي ген تي بيتي با يالا ديف كمال توخسي في كون بوك بو يالا باخي با نييو فكي لو ملني ني جوخ ني تي كادو دي ني سنت يالا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم كيب كو في نك رك يالنا يالا فسي اديو ات مي ني دوغ موي ات مو دوغ اك بسم الحمد لله رب العالمين lépp luñ ci jàmm yàlla nako yàlla nangu lu ci deung deung wala yaqu yak yàlla na suñu borom djegal bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam foofu daal laa mën ci gatal ngeen bal ma akhu wa salaamaaleykum ma ngi djeg a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي إليه إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلاته وسلامه على أسرف خلقه صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها حافية الأبدان وصفائها قوت الأرواح وسرابها جدنا أبا الخاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكي نيلن دي نيو نيلن دي زيارة نيلن دي بلو أقد لين بال يل ننكو تيوين نغني ديوين نانون ننكو في داو نيال ننفك ديوين أم ننكو فكي ول du seenug yaafus am na ñu ko fekkee du seenug njàmbaar yàlla moo soob seen àpp mat ñu dem seen seen mission jeex ñuy wuj seen boroom ñu ngi leen di ñaanal yàlla xale leen àjjana ndax àdduna moom ay tool la ñun ñëpp ñu ñëw bay si لنبلوكم أيكم أحسن عملا كون يالنا يالا رفيتال نو سونو جيف يالنا يالا نانغول نو سونو جامو يالا يالنا يالا تابي خولو جولي دي يالنا يالا جوبال نوك سونو ويجوري يالنا نو يالا داجالي نغرمم اك نغرمال لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تابيل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان آمين وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان آمين وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان آمين ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان آمين وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصلاحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وأمر بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمنا من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين حق قدره ومقداره العظيم صلاة تمحو بها ذنبا كان حاجزا بين الدعاء والإجابة صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات الذي يعتنى الذي يدخل الوير أكبر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 tabaarakallaahu di sant yàlla bu baax ci jotaay bi ñu am tey te njëkkul tey wante tey la gën a yees ni mu mel ñu ciy sant yàlla bu baax ndax daana gën a rëy lii mu am jàmmi jamono ñu tegoon ko ba daaw sëñ Moustapha indi ko ci kër gi waaye tolul woon nii kon su tolaatee nii ñu ngi sant yàlla tey ñaan yàlla mu yokk ko ngi gërëm nak dëkkandoo yëpp fa tabarakallah xamna sama kaddu amul solo ndox du mom la xaar Serigne Cheikh la xaar mu jël micro bi waye da di yobante àq ñi mat ko kaddu bu ñu yobante rek tabarakallah mu jëm ci dëkkandoo yi ci sëñ mustafa Kamal Sambu, yonne leen ko neena na mi ngi gërëm ñëpp di leen sant te di leen ñaanal yalla sallallahu alayhi wa dafa ni su la nit defalee loo ko mënta fay da koy wax rek bàyyi naa la ak yàlla mooy jazakallahu anna xayran bu la yàlla wuutoo ci kooku fayal la ko moo gën sa fay kon nag nee na yàll na leen yàlla fay dëkkandoo kër Sayib Ndoye yépp di gërëm itam ci li wax woy juróom bii toog muy bàyyi moxtaar kooku moom li Serigne Cheikh waxoon sànq ci répétition du ko deñ di ko wax gërëm na ko te nag doom day gërëm way juram ndax yar bi mu leen yar teg leen fi mu leen war a teg ba egseeg ñoom fii ba mustafaa ku ko gis bëgg a bokk ak moom way juram a tax nee na mi ngi gërëm way juram woowu Baye Mokhtar yal na la fi yàlla yàggal lool yàgg waa carrière ak ñi ngay ànd ak yépp fa tabarakallah Kamal it nee na bàyyi na la ak yàlla yàlla na la yàlla fay aqu yar beeg topp gi ba léegi Kamal tabarakallahu ni mi ngi gërëm koo xam ni nag ndax yoonte bi dafa wax ni sallallahu alayhi wasallam góor genn walu aljanam moy al mar'atu saaliha moy am soxna su bax koku genn wàllu àjjanay góor la ko xamni bo yekete mu yekati na khadijatu suñu yaay melon nag sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam diko jàppale ci katanam ak posam ak khalatam Kamal neena soxna Roqaya mi nonu la taxawé ak mom ndax nee na góor goo xam ni bu xëyee sept heures nga koy gëj a gis te bu ñëwaatee ci kër gi vingt-deux heures la mu jawal ca jur ga du tal sax ñëw ci néeg yi léeg-léeg mu dugg ci saal bi far nelaw fa te doo ko kaas doo ko wax dina roq yi yal na ko yàlla fay loolu it tabaarakallahu li mu ci mën a teg rek mooy jëkkër bu gërëmee sëri soxnaam li ko yàllay fay mooy njaboot gu barkeel gi mel ni kamaal mii bu ëllëgee bu jaamoo yàlla ba mu mat su boobaa nag yàlla da ko naan duggal àjjana ci bu la neex nga tànn jéggalu loolu kon bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أيها الإخوة الأعزاء أحييكم بتحية إسلامية تحية مقرونة بأسمى معاني التهاني الطيبة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الله مكي جلدي في دجي نيجي سنتي الله دي جلتي بي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم di julli ci ay ñoñam ak i saxaabaam di am mbégte jàkkaarloo kanam yu tedd yi nga xam ne soppuñu ku dul yàlla wutuñu ku dul yàlla dala dara safu leen lu dul yàlla ba tax ñu bàyyi seeni aajo jël li gën a cher ci ñoom te moo di seen waxtu seen temps ñu ñëw ci barab bi fas yéene fee jaamu yàlla jaare ko ci yoon wu ñuy tuddee xam-xam sama turandoo dafay wax ni sénégalais xamul ci jaamu yàlla dudul sa gëkk siggi waaye jaamu yàlla gën na yaatu loolu ba tax na sàkku xam-xam ci jaamu yàlla la bokk kon nag ñun ñëpp ñu fas ni minute bu ñu fi def seconde bu ñu fi def waxtu wu ñu fi def suñuy tiyaaba mu ngi yokk ci wàllu yàlla ndax ñu ngi ci jaamu yàlla ci buntu xam-xam sen mbokk ci Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal ngeen eumbal ko cofeel cofeel go xamne yàlla rek tax am ñu jóge fu sori ñëw te suñu borom subhanahu wa taala danay bég ci ñaari jaam yu soppante ngir jëmmam daje ngir jëmmam ba taxoon mu ne yonent bi juróom-ñaar li taxawaayu yowmal xiyaam di metti metti daañu leen seppat ca mbooloo ma yóbbu leen ca hôtel ya gën a nëggu du ñu yëg fitnay taxawaayu yowmal xiyaam te fitnay taxawaayu yowmal xiyaam misaal nanu ko ci bi yàlla commencé bind ak léegi la dale ci suñu maam aadam ba ba àdduna di tukki li fi jaar bari na ñooñu ñëpp bu ñu dekkee war a taxaw ci benn ëtt mbooloo ma dana bari looloo tax ñu tuddee ko yow yowmul izdiham bisu rajaj loola ndax nit ñi daañu bari ba mag ñi misaal nanu ne danga gis ku teg tànkam am ku teg tànk mu bëgg koo rocci keneen teg tànk mu bëgg a rocci du ko mat ba tànk ya mat junniy tànk ci kaw tànkam ngir mbooloo mu bari taxawaay boobu dana metti ba nit ñi dañu sàkku ci ki yàlla dénk safara mu di malik ne ko yaa maliku li yaqdiya alayna rabbu nañu yàlla àtte benn yoon këy dugg safara dugg safara ñun sax d'accord nañoo dugg safara ngir ñu génn ci fitnay taxawaay bi la kon bu ñu demee ba taxawaay boobu dugg safara gën koo nekk noflaay kon taxawaay ba metti na ña fa yàlla di génnee nag yóbbu leen ca hôtel yu nugg ya juróom-ñaari nit la juróom-ñaari nit yooyu ilimaan bu maandu ca la bokk ndaw lu miin jàkka ca la bokk tabaarakallaahu bu ñu ko dee lim da mën na guddal waxtu yi waaye kañu ca soxla te moo ca gën a néew coono mooy ñaar ñi soppante ngir yàlla daje ngir jëmmi yàlla waxtaan ci yàlla taxalikoo ci yàlla ñooñu am na nuy ba ëllëg suñu boroom dana leen rocci ci jataay boobule yóbbu leen ci hôtel yi gën a nugg du ñu yëg ca fitnay taxawaay ba dara ba yàlla pare dugal leen aljanna suñu jataay bi yàlla na ci bokk mbokk yi ñu ngi ànd ak mbokk mu tedd mu ñuy wax oustaz al imam abdullahi taal ngi ni toog moo jiite suñu délégation ji sët ci cheikh omar fouti radiallahu taala anhu di suñu imaamu jàkk ca Castor tabaarakallaahu mu ngi nii ànd ak ñun ñu ngi ànd ak du ñu miine ma ko ak suñu doom da foog ne alal ja dafa war di dolleeku mais warut wàññeeku waaye baadama arafa allah yaarafu yaani yafraxu bil su demee ba xam nag yàlla dajek ku ko yar ci walu batin ba mu xam yàlla su boba nak dotul bik ci di denc alal mais fay bik ci di genné alalam di joxe dana joxe azaka ba azaka wàcc ko mu continuer di saraxe mom la yàlla wax ne fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra ñi nga xamne xam nañu yàlla joxatuñu valeur aduna ñak jox ñak jox valeur aduna motax alal duñu ko denc mukk moo taxoon alaaji Abdou daan wax ne bu do won ak soccu duma am poche ndax man lanti nor la lu jaar ci man ci jami la jëm ñoñu yafrahuna bil ata lutax li ma'rifatihim billah waaye wala wala yafraxuuna bil akhz dune dañuy contane ci rek lo leen jox rek ñu denc mukk lu ñu yor rek dañu génne fa amma man aata suñ borom ne ndaal ki nga xam ne nangu naa joxe alalam wattaqa mu ragal yàlla di ko moytandiku saa su ne ngir xam ne allaaxiraa ngi ñëw wa saddaqa mu dëggal bil xusna ci ne àjjana am na te arduha samawaatu wal ard te moom la yàlla di faye ay jaamam suñu borom ne fa sanu yasiru kooku daañu ko yombalal lil yusra yoon wu ko jëmee àjjana te du am benn problème waaye am na safaan de waa maaman baxi la mooy ka nga xam ne xamagul yàlla kooku dafa nay waa maaman baxi la ki xamagul yàlla moom ku génnee ala bu bu gisee ku génnee alalam di def ci yoonu yàlla day foog ne kooku day foog mooy waa maaman baxi la wastax na motax qabla an ya'rif allah doomu adama lu jitu muy xam yàlla yara min az-zaka an yastaghill juhud al akhirin akhirin mom da fay jàpp ne mous ak ak ñaw mu ngi ci exploiter kep ku muy jëflanteel moy fexe ba nax la bu dee ne patron bi la da fay exploiter ay employé du len fay fay bu baax te yonent bi né na fayal ki la liggéeyal lu jiitu ñaxam di fenn nit ki liggéeyal la di daw fayuloo ko ay droit am tabaarakallaahu lépp nga bàyyi rek mu niin am Sénégal looloo fi nekk Sénégal dangay gis ko ubbi société na mu war a déclarer société bi du ko def ngir rek bañ a fay yenn taxi yi ñi mu war a embaucher du leen embaucher bu la jëlee ba foog ne 6 mois yi dana mat te bu 6 mois yi matee embauchement moo cee topp mu dàq la parce que moom soo xamul yàlla da ngay foog ne di def ay jeu ci ñi ngay jëflanteel di leen nax loolu mooy àdduna waaye nag baadama arafa allah yusbixu fi xidmati l axirin su demee nag ba ñu yar ko ba mu xam yàlla dafay mujj moom nekk jaamu nit ñi di leen liggéeyal moom la maam El Hadj Abdou daan wax toujours man Abdou Aziz si seen jaam nanguwul mukk moom nekk sang nit ñi di nekk jaam man El Hadj Abdou seen jaam bi waaw parce que xam yàlla gaa tax mu nekk fii xidmatil aaxarin bu nekkee ay moroomam ci biir kër gi bu kër gi tilimee moom jàpp na ne moo war a fobeere su saabu manqué jàpp na ne moo war a jënd su suukar manqué jàpp na ne moo war a jënd su mbindaan mu ñëwul jàpp na ne moo war a toggi su ndox mi manqué jàpp na ne moo war a dem rooti du xaar kenn moom loolu muy def yépp nag la mu ci yéene mooy jaamu yàlla ci kaw nit ñi moo tax sëñ fàll mu baax ma daan wax ne jaamu yàlla ñu ne ah, mu ne ci nit ñi so deme ba xam yàlla nak da ngay jàpp ne nit ñi dañ lay may chance pour nga mëna am yàlla ci ñoom su ngeen génnee ci jàkka ji ka ngay waxtaanal ya koy jitu ci dalam njëkk ko ko tegal cheikhou tidiane ne walaw bi taqdim an ni'al sa mbokk talib boko fonké ba tegal ko dal mën na la may aljanna قبل أن يعرف الله يرى أن المال كل شيء nit ki bu xamul yàlla dafay foog ne ala lay lépp ala lay tax ñu considéré ko ala lay tax ñu xam ko ala lay tax tabaarakallaahu eh, mu doon ki mu doon mu ne waaye nag su dee ki xam yàlla moom moom dafay xam ne alal da ciy jaamu yàlla wa illa nekk na li nga xamante ni da koy jural alkande lu suñ borom wax maa yuxni anhu maaluhu isa taradda ki foog ne alal moo ko def li mu def ñu koy tudd muy dem ca ndey dikk ya di joxe di dem ca mitin ya ak sabar ya di joxe bàyyi miskin yi suñ borom subhanahu wa taala nee na maa yuxni anhu maaluhu ida taradda yàlla nag ne inna alayna lal huda li ñu war ñun mooy ñu defal leen orientation wan leen boo amee alal fi nga ko war a dugal pour mu jural la texe ak ni nga koy jëfandikoo ba mu sànk la orientation boobu daal defal nañ leen ko seet leen nag Aboubacar daal jóg na fas yéene jël alalam yépp jaamoo ko yàlla يلا نه وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى يلا نك نه يوم يجمع ألل بفوق نه ألل من نلا دفعل نه بودي فين كوي باي تلينا تيجي جوتا لك تدوش بلجيم لينا تيجي سول تيجي سن بلجيم